sallallahu alayhi wa sallama yal na yàlla dappetal xéwalam ak muccam ci moom xaala wax na laysa shadidu déet ki tat laysa shadidu déet ki am kattan laysa shadidu déet ki dëgër laysa shadidu déet ki am doole laysa shadidu déet ki am puissance pouvoir bi suraati mu nekk ci nërmel ka mu ko seqal xeex ak nit gañe ko ba bëreeg moom yenn fitti ci suuf yonentu nee na du looloy doole innama shadidu nekk ki am kàttan innama shadidu nekk ndekki ki tar nekkul kudul alladi ki nga xam ne yamliku dafay moom nafsahu bakkanam nafsahu boppam daf koy contrôler inda al ghadabi fa jamonoy mer ma ñi xam ne def nañ ko loo xam ne mer dana ko dugg ba ku ko gis baa ku ko fekkee ni kii de dana def musiba au lieu mu nërmel ka ko merlo waaye mu nërmel passion mu nërmel bakkanam ba du réagir réaction buy tax rëccu am place ci euh, kooke yàlla na tàgg na tàgg na ñiy wan mer waxul ne nit du mer waaye mer du du mën jullit bi ba mu def loo ko lu mu warta def wal kaadimiina al waaw góor ba ko jaam ba di ko sottil ndox te isaan xam naa ak wegeelu góor ga ndox ma daanu ca kawam mu xool jàmm bi tu mer am ne ko wal kaadimiina al ghayz sama borom tàgg na ñiy wan mer mu ne ko kadamtu ghayzi wan naa sama mer bon wal aafina ani nnaas yàlla yemut foofu tàgg na ñi ñiy baal nit ñi mu ne ko baal naa la aafawtuki ne ko yàlla yemut foofu wallahu yuhibbul muhsinina nee na bëgg na ñi rafetal mu ne ko goreel naa la kon nag ñu bokk ñun ñëpp roy ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam jëfee ndigalam ndax ba ko waaja me dénk mu def ne ko bul mer bul mer maanaam bu la mer yóbbu ba nga defee no warta defee mbaa nga waxee no warta waxee laysa shadidu bi surati innama shadidu alladi yamliku nafsahu inda algadab muttafaqun aley xadis yaa ngi ci buxaari yaa muslim yal nañu yàlla may kàttanu biir ak biti te defaral ñu suñu zaahir ak suñu baatin ba ñu jikkoo jikko yonent te mu gërëm ñu